aywa Chérif ñu wax itam ci jàngatu bés bi ànd ci ak Souleymane niñ koy defee aljuma bu jot ci euh, jëm ci wàllum koom tey nag maa ngi koy wax sànq Souleymane euh, dafa def euh, taxaw seetlu la fas yéene def incha allah ci viabilité du système de retraite au Sénégal bëggoon naa mu ñëw quand même euh, d'abord ñu avant ñuy gën a soobu ci biir waxtaan bi. non que comme dénk wàll fii ci Sénégal ngir ñu dem à la yi neen war a fay coow li daana bëri mais dafa mel ni gis nañ quand moom ay efforts yoo xamante ni ñoom institution bi def nañ ko Sénégal d'abord bu ñu bëggoon taxaw ban âge la nit ñi di dem retraite vraiment. waaw âge euh, bi ñu gën a jàpp moom mooy 60 euh, ans mais. Euh, évidemment du ñëppay dem 60 ans am na ñoo xam ne euh, ëppale nañ 60 ans. Mm-hmm. magistrats yi au magistrats yi xam ngeen ne am na si ñoom ñoo xam ne 65 ans la ñu dem. Mm-hmm. Euh, am na ñoo xam ne ci enseignement supérieur professeurs yi am na ñoo xam ne au delà de 60 60 ans la ñu dem ba plus récemment. Euh, njiit réew bi jëloon na décision pour que médecins yi ak yi ni mel ñoom tamit ñu xool seen i ay âge la retraite mais l'âge officiel c'est 60 ans évidemment am na ñoo xam ne aussi en raison de la pénibilité ak euh, le fait que voilà dañu am ay aménagement pour partir un peu avant euh, loolu la loi wax maintenant nit aussi mën na décider ni day dem retraite pas au-delà de l'âge légal mais avant nit mën na décider anticiper retraite am avec les conséquences yu muy am maintenant euh, dama buggoon ñëwaat ci li nga wax léegi-léegi retraite effectivement IPRES bokk na si ñi si ëpp solo ci ñi koy toppatoo mais c'est pas la la seule euh, actrice c'est pas le seul acteur dans ce domaine fonctionnaires yi ñoom fonds national de retraite moom mooy gérer ni retraite mm. au demeurant mën nga nekk FNR wala nga nekk IPRES nga souscrire aussi ay mécanismes yoo xam ne da lay jàppale. boo jëlee retraite lu mel nii euh, indemnité de fin de carrière boo xam ne normalement entreprise bu lay employé booy demee retraite war na ko provisionner bi ngay liggéey pour que booy dem nga mën a am indemnité boobu waaye système assurantiel bi mën na la permettre aussi nga. gérer loolu même système assurantiel bi c'est-à-dire privé bi mën na la aussi dimbali nga jël benn assurance retraite boo xam ne da ngay cotiser boo demee ba jël retraite soit FNR soit IPRES nga yokk ci nag li nga xam ne da nga ko cotiser loon sa bopp si ay système privé lu mel ni assurance yi nga mën ci yokk sa indemnité de fin de carrière et certainement sa euh, li nga cotiser woon soit sous forme de rent viagère ñu la koy fay ba ba ngay yàlla tudd lu gën ci yow waa illa hmm. nga jël ko en sous forme de somme globale boo xam ne dañ la koy jox à un moment donné après sa retraite waaw xëy na am na dëkk yoo xam sax nit ñi dañuy sawar a dem retraite ndax lan lay fay ji pension takku na takk boo xam ne xëy na mën nga cee suturlu est-ce que c'est le cas pour le Sénégal alors euh, retraite moom ku ko wax rek wax ni dëgg yàlla say revenu wàññeeku bu baax a baax Euh, defuma comparaison bi mais je sais par exemple que am na ay différences ci dëkk yi boo demee dans les pays scandinaves par exemple mm-hmm. effectivement seen système parce que euh, nu mu demee ni la nga dem États-Unis euh, parce que système yi du benn mm-hmm. ñun suñu système de retraite c'est un système Euh, par répartition de répartition mm-hmm. moom mooy dañu cotiser dafa am ñu liggéey ñoom ñooy cotiser ñi nga xam ne dañoo retraité d'ailleurs à ce point euh, à ce propos la il faut ma souligner benn tendance boo xam ne mu ngi am at yi ñu génn mooy lan il à peu près trente quarante ans depuis année soixante-dix yi. boo calculer woon ratio bi. ñaata liggéeykat ñooy liggéey pour ñu mën a fay benn retraité c'était cinq quatre tey jii on se rapproche plus de deux travailleurs ñooy cotiser pour un un retraité. kon dafa mel ni am na wàññeeku bu am foofu. léegi il faut approfondir pour xam lan la est-ce que liggéeykat yi ñoo wàññeeku est-ce que retraités yi ñoom ñoo yokku je pense que ñaari facteurs yëpp ñu ngi ci. Mhm. loolu mooy répartition. Euh, am na nag système de capitalisation pour revenir à la question bi Chérif posé mhm. moom mooy système capitalisation rep euh, moom mooy lan mooy boo demee par exemple États-Unis liggéeykat yi dañu choisir ay fonds de pension mhm. qui sont des structures fa la ñuy dem di cotiser. Mhm. fonds de pension yooyu tey jii ñoo moom adduna bi presque. parce que xaalis bu takku bi nga xam ne moom la nit ñi di cotiser foofu. Mhm. moom la ñuy investir ci entreprise yu gën a mag ci adduna bi. Mhm. moom la ñuy investir ci actifs financiers yu gën a rentable ci àdduna bi muy ay actions waaye tamit ay obligations d'État ak yi ni mel mu leen di indil ay intérêts yu takku de sorte que li ñu fayaat ñi nga xam ne ñoom ñoo doon cotiser day takku lool par rapport ak li ñu doon bi ñuy liggéey li ñu doon am. boo ñëwee nag ci système de répartition bi dépendant de ñaata la ñu cotiser. c'est ça aussi. parce que pourcentage dafa am part boo xam ne employeur bi moom moo koy joxe part boo xam ne travailleur bi ci li ñu koy fay lañ koy dindi. globalement de lépp ci li ñu koy fay lañ koy dindi mais dafa am part employeur ak part travailleur. Mhm. léegi dépendant de taux bi taux de cotisation bi par rapport ak revenu yi dépendant de combien de personnes ñoom ñooy cotiser pour Euh, euh, euh, un retraité loolu day déterminer montant bi mais am na beneen facteur bu important et c'est ça qui fait que suñu système au Sénégal c'est relativement intéressant c'est-à-dire de droit des jurés suñu système système répartition la dafa am ñu liggéey di cotiser pour ñiy retraité mais de fait IPRES pas Fonds national de retraite parce que beneen système la. Fonds national de retraite mais IPRES en vérité il une bonne dose maintenant de capitalisation parce que IPRES ay statut am dañ ko may xaalis bi nga xam ne daf koy dajale. mu koy investir tamit. à travers des placements de fonds mun nga placer ay fonds ci ay comptes yoo xam ne day rémunérer bu baax ci ay banque wala ay mel noonu mën nga tamit investir dans des actifs sûrs. lu mel ni obligation d'État parce que obligation d'État lu mu bon bon bon même bu nekkee du rapporter lu bëri temps yi ça rapporte relativement beaucoup parce que taux yi dem na ba plus de 5 pour cent amoon na ay temps. Mhm. amaana boo placé ci yenn dëkk yi ay 4 pour cent kii ay 3 pour cent ngay am mais tey jii day dem ba ay 7 pour cent. Mhm. de de taux de rentabilité donc IPRES day. pla day placer xaalis bi. Mhm. day investir waaye tam day investir surtout ci immobilier bi. vous l'avez mhm. remarqué les immeubles de rapport ay projet immobilier yu mag a mag. tey jii gis ngeen hôtel Indépendance mu nekkoon. Mhm. tey jii IPRES moo ko moom. dafa am loo xam ne daf koy daf koy utiliser waaye loolu ci gën a bëri location la donc yooyu da lay indil xaalis boo xam ne amaana bu amee ay sooxe feneen parce que ay sooxe am na nga mën a dabu foofu looloo indi tey système bi il est résilient déggu leen pension yu ñu fayul parce que euh, ñu ngi fay normalement à part quelques problèmes techniques en mars 2023 vous avez remarqué amoon na fi problème mais loolu problème technique la woon mm-hmm. mooy bi ñuy xool ndax ñii di fayeeku yëpp ñu ngi exister parce que amoon na fraude bu doon am euh, IPRES bëgg et cetera mais mm-hmm. bon an mal an mm-hmm. bon même si y a parfois des difficultés ñu ngi fay à date échue et même parfois par anticipation parce que Euh, pension janvier début janvier lañ koy fay. ba tey jii sax tënk nañ ko ba au plus tard le le le 5 donc. Euh, le système il est résilient malgré les difficultés des tensions de yoo xam ne day am mais je pense le risque bi nga xam ne moo gën a important ci IPRES moom mooy ñi nga xam ne dañoo war a fay cotisation te duñu fay te lu ci gën a bëri société nationale yi la foofu laa bëggoon ñëw Souleymane mm. parfois aussi non seulement pension yi fii demeewul noonu liggéey ba retraité et il s'est rendu compte que cotisation yi demeewul woon noonu. loolu sax IPRES je pense mm. ak état bi. ñu ngi ciy indi ay solution pour que. Mm. nit ki bañ a dépendre ci ndax dañ la doon cotiser am déet mm-hmm. parce que wax dëgg yàlla c'est pas ta responsabilité. c'est ça nga liggéey pendant. vingt ans. Mmh. évidemment sa responsabilité mooy de temps en temps et loolu dañuy ñaax travailleurs aussi ñu koy def di dem di xool seen situation. Mm-hmm. man mi bi ma ci gëjee yàggul tellement. daaw yaakaar naa dem naa vérifier ji di nga am nañ la fa dalal. Euh, xoolal la sa sa sa compte. ndax ñu ngi la doon cotiser bu nekkee am na koo xam ne cotiser lu la woon. pendant que tu travailles ñoom nañ ko régler. dem xool ak kooku lu tax cotiser luñ la. Euh, et cetera. Euh, jéem a rétablir sa situation. mais am na yeneen système yu ñu def. en amont pour s'assurer maintenant parce que. bu ngeen xoolee tamit en 2022 2021 2022 ba 2023 euh, dans le cadre de la mutualisation du système d'information de l'IPRES et de la caisse de sécurité sociale mm-hmm. am na IPRES travail bu mu def au niveau des employeurs mm-hmm. pour ñu defaat seen i ay déclaration salaire yi ñu fay pour mettre à jour seen système d'information loolu c'est un moyen de contrôle aussi que nit ñi déjà ñu ngi enregistré wu ci système bi bu ñu employé bu ñu fay ay salaire à ce moment là suivi bi ndax ñu ngi cotiser ou pas day gën a yomb. Mhm. sans compter li ma wax sànq. li ñu def diggante fin 2022 et 2023 moom mooy vérifier que ñi nga xam ne dañu dañ leen di fay pension ñoom tamit preuve de vie yi. ñu ngi exister bu baax a baax. Mhm. loolu indi probablement d'ailleurs que IPRES mën a dégager ay marge mhm. pour di yokk yokk yu ñuy def yi mais pour revenir à la question. je disais que l'un des problèmes moom mooy arriéré de cotisation surtout nag bu nekkee société nationale parce que société nationale dafa am particularité mm-hmm. dafa am immunité d'exécution mm-hmm. c'est-à-dire tey jii même bu cotiser wul munoo dem saisir xam nga IPRES yokkoon nañ fii euh, ay dooleem il y a quelques années je dirais même plus d'une décennie mm-hmm. pour que ñu mën a euh, recouvrer li nga xam ne ñoom ñoo ko moom en tant que dañ leen war a ay cotisation ak yi ni mel. jox leen vraiment ay ay ay ay jumtukaay. yoo xam ne mën nañ dafay avis à tiers détenteur wala yu mel noonu. Euh, pour forcer la nga fay. mais loolu noo ko def ak société nationale or fin 2020. les sociétés nationales devaient à l'IPRES 57 milliards de francs fa loo xam ne dañ ko waroon fay fayuñu ko. Mm. te ku xam situation société nationale yi diggante fin 2020 ak tey jii bu ñu la waxee ni apuré nañ ko à moins que état bi jël ci gafakam. Mm. apuré société nationale yi bu dee ñoom kese. bëriwu ci ñoo xam ne seen situation may na leen. li ni toll ci ay arriérés ñu apuré ko. malheureusement yoruma situation net bi mais en 2022 et ça c'est une bonne indication. Mhm. on avait des arriérés à ce niveau-là qui fait peser un risque mais malgré tout ça l'IPRES paye régulièrement. Mhm. yokk nañ ces dernières années. Euh, je lisais 2016 mais même depuis 2012 ba léegi. 50 mhm. pour cent la ñu yokk. boo jëlee FNR Fonds national de retraite ñoom entre 2012 et aujourd'hui yokk nañ à peu près 20 pour cent looloo indi d'ailleurs euh, les les les pensionnés du FNR keroog bu ñu annoncé ni à du 1er janvier 2024 dañuy yokk pension euh, de retraite Euh, au niveau de l'IPRES ñu xaw a ñaxtu tuuti parce que ñu ne li ñuy yokkal waa IPRES moo ëpp ñoom li ñu leen yokkal sur la même période. après maintenant il y a un que boo jëlee la moyenne li ñu fay. Euh, à peu euh, euh, du Fonds national de retraite. Je donne quelques exemples. En 2012, il y avait 67 000 pensionnés national de retraite. Euh, soit dit en boo jëlee IPRES, il y a 135 000, 140 000, dépendant de, voilà, mmh. est avant le contrôle ou le contrôle. en tout et pour tout ça nous fait deux cent un peu plus de deux cent mille personnes xam ne dañ leen di fay retraite ci ñaari système yooyu au Sénégal. léegi bokk ci. 2012. on avait 67 000 au FNR pour à peu près 90 milliards. boo defee moyenne bi c' est 1 milliard 1 million 300 mille à peu près par par an ça veut dire à peu près un de 100 000 francs par personne pensionnée en moyenne hein, en je parle pas des disparités nga jël 2022 on a 73 000 pensionnés au niveau du FNR et on est à 1 million 600 mille il y une différence de 259 bu yokku ci moyenne bi entre et 2000 2000 2023 2022 dégg nañu président lu de ci yan mécanisme lañ koy yokkee moom daf ciy dugal loxoom wala dafa dafa am xëy na mooy fonds yoo xam ne moom la ñuy pour les deux systèmes toftal waaw ba loolu tamit bokk na ci avancée yi innovation yu am yi. Mm-hmm. Mm-hmm. non seulement yokk bi. Mm-hmm. mensualisation. Euh, des des des pensions au lieu de trois mois deux mois léegi chaque mois. dañu euh, dañu fay euh, pensions yi au niveau de l'IPRES mais aussi au niveau du du du FNR. donc loolu ce sont des des des avancées significatives. Mmh. am na ay prestations médicales équipement des centres et honnêtement au résultat les prestations euh, la régularité des paiements augmentation paiement yi. Mmh. la pension minimale. Mhm. amoon na ay temps il y a des gens qui recevaient six mille francs. de pension. Mmh. c'est catastrophique. tey jii y a un minimum quand même. si je ne m'abuse c'est trente cinq mille. Mhm. boo xam ne nit ki lu mu néew néew néew néew néew dina ko am su euh, bu nekkee dafa pensionné wala mu am sax euh, pension de de de de réversion parce que nit ki bu bu bu retraité bu dee góor la bu bu bu faatoo sous certaines condition mm. facile à remplir d'ailleurs mm. euh, surtout bu nekkee yàgg na ak ay soxnaam wala soxnaam ak ay doomam ak yi ni mel mm. dañu reverser pension bi enfin 50 pour cent à à sa famille après euh, bu nekkee plusieurs femmes am na nu ñu répartir et tout ça yooyu yëpp ce des choses yoo xam ne c'est assez important mm-hmm. maintenant euh, encore une fois la question c'est fan lañ jógee fan lañ toll tey mm-hmm. ak fu ñu jëm mm-hmm. c'est la question de la viabilité il est important qu'on s'assure que le système est résilient et viable et pour ça il faut que ñi war a cotiser cotiser y compris les sociétés nationales il faut que euh, ñu euh, anticiper les tendances ils ont quand un personnel il des actuaires il y a des il y a des spécialistes de l'investissement il des gens qualifiés yu nekk foofu yoo xam ne dañuy def liggéey boobu mm-hmm. il faut anticiper les tendances mm-hmm. amoon na ay temps les plus de 60 ans bëriwuñu woon mm-hmm. tey jii on est à un million soixante-quatorze mille personnes yoo xam ne am nañ plus de 60 ans on n'a que 200 000 pensionnés. C'est 20 pour cent. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est 20 pour cent de la population de plus de 60 ans ñeneen ñi ils sont pris en compte par les autres mécanismes mis en place par l'État. Mm-hmm. ay plan Sésame euh, ay bourses familiales et mais on est loin du compte. éventuellement boo ci yokkee ay 300 500 000 personnes. il y a quand même une bonne moitié qui est laissée en rade. et on sait que. Euh, wax dëgg yàlla c'est des gens qui continuent à avoir des responsabilités au niveau de leur famille qui ont des besoins spécifiques mmh. mmh. des besoins financiers mmh. mmh. et ça euh, le système doit prendre ça en, mmh. en, en compte mais il faut reconnaître que suñu système de retraite wax dëgg yàlla c'est un système bon an mal an qui se porte bien euh, et surtout si on améliore euh, dans les années à venir qui va être résilient par mhm. rapport euh, euh, aux risques yi nga xam ne ñu ngi peser wu encore une fois mhm. euh, les arriérés de de de de cotisation des employeurs après mhm. maintenant je termine par ça oui. le dernier problème c'est euh, le risque qui pèse sur l'IPRES actuellement c'est la fonctionnalisation parce que les recrutements qu'on a fait les régularisations maître contractuel euh, ak yi ni mel professeur contractuel fonction publique locale ça, veut dire que tous ces gens là c'était des agents non fonctionnaires de l'État mm -hmm. qui cotisaient à l'IPRES finalement bu ñu leen fonctionnariser wala ñu titulariser mhm. ils vont au Fonds national de retraite mm -hmm. c'est autant de cotisation en moins mhm. euh, l'IPRES. Ça aussi, c'est des choses euh, à, à, à, regarder de près, mais je suis sûr que l'IPRES est en train de travailler là-dessus. incha allah merci beaucoup Souleymane ci euh, jàngat bi ni ñu koy defee saa su nekk léegi léegi dañuy dalal suñu invité.